moom mi waat ci rendi doomam mbaa loj doomam bu fekkee xelam nekkul ci jaamu yàlla ca rendi ga mbaa loj ga na ko Ibrahima doon defee ca Ismaayil xelam demul ca loola xanaa moom da di ab kàccoor rek yéeniwul dara ca loj ga mbaa rendi ga mbaa lam ci yéeni sax mooy rendi dëgg-dëgg doom ja ah kooku moom day jégalu rek waaye dara du ko war ca loola fu njëkk fa moom yéene gëm ci yéene woon ak jaamu yàlla xelam dem ci ba ko Ibrahima yi bëgg a def rek loolaa tax ñu sant ko addiyuma wa man xalafa ku waat bil machi ci dox ilaa màkk te jëm màgg fa xalisa te mu teeñu fa xalikul war na ko al machi dox ga min mawdi xalif yi tàmbale ci béréb ngéñam ba nee na bu nee nangam duma ko def su ma ko defee rek danaa dox sa tànk ba dem màkka kon loolee mu waat bu tebbikoo rek mu war a dox ak tànkam ba dem màkka su fekkee ne am na fu mu ràññeeloon ne fa laay tàmbalee doxe dem kon foofa lay tàmbalee su fekkee ràññeelu toon benn béréb bu muy tàmbalee ab doxam nag kon dëkk ba nga xam ne ca la waate woon rek ca lay tàmbalee dox ba ne sax lim ne min mawdi xalifi yi ci béréb bu ngi ñam ba jubluwu ci dëgg-dëgg yi béréb ba nga xam ne ca la taxawoon ba muy waat dëkk ba rek la bëgg a wax dëkk ba mu doon waate rek faneem si na dox nag incha allah dem soob na ko fi xajin ci aj aw xumrat wala xumra maanaam bu fekkee ràññeelu toon ne danaa dox dem màkk aji mbaa danaa dox dem màkk xumra ji ràññeelu ci woon lenn dafa waatoon rek dox tànkam dem màkk kon bu demee baag lu ko ci neex lay def bu ko neexee aj bu ko neexee xumra fayin xajja sa ndem lot na xalil machi walis dox ga rakki ba mu war su ma yore topp dana dellu saar yatan yoonu ñaareel in qadara ndem attan na ko fayam si tamit dox amaakin rukoo bi béréb bi waram nga nee na bu fekkee daa tàmbali woon dox tànk bu wuti màgg dem ba ci yoon wi nag bu tëlee mënta doxati ko wax ne ko da ngay war rek jàll ngay wut loo war te jàll su wutee nag jàll nag te mën a delluwaat yoonu ñaareel nag kon day dellu yoonu ñaareel te diggante ba nga xam ne ko waroon ci yoon wu njëkk ba mu dox ko ci yoonu ñaareel wi lam njëkk ndox nag a jëkk moom mën na koo war bu ko neexee mbaa mu dugg ko oto mbaa leneen waaye lam tële woon ba waran ko ci yoonu njëkkoo rek loolu lay doxaat nag ci yoonu ñaareel wi payin xaalima dem xam ne ne ànd woon naka moom laa yàqdiru du ko man xaxada mu jekki way xadaate mu addiyo su fekkee xam ne ne bu delloo yoon ñaareel tam du tax la waran ci yoonu njëkk moom mën koo dox kon na fa toog rek te def mu addiyo waxaale wax na xartaawu sëriñ bi ñu wax xartaawu ne laayar jox du dellu saaniyatan yoonu ñaareel wayen xadara ak doon te attan na ko wayu siifoo dana ko doy rek alhaddi addiyo xartaawu sëriñub gëstukat la moom daa wax ne bu xasee tële ci yoon wu njëkk wa ba war dem jeex na du aajowoo muy dellu yoonu ñaareel doonte xam na ni sax bu dellu woon dana mën a dox lam waran ci yoonu njëkk wa it addiyu rek doy na du aajowoo muy dellu waaye nag jooju wax taxul ñu sukkandikoo ko li ñu sukkandikoo mooy na dellu ndegam bu delloo lam njëkk na war ci yoonu njëkk wa dana ko mën a dox ci yoonu ñaareel wi wa itaakaar dem nekk na sororatan di ko mustaaj jaxala mu def daalika loolee fii xumratin ci xumra fa ita taafande wër na kaaba wa saxaa te mu dox safa ak marwa wa xasara te mu jemp axrama mu armal min màkkata ci màkka bi faridatin ci aju farata wakaanate mu nekk mu tamattihan di aji def tamatoom nee na bu fekkee ne moom mi waatal ci dox dem màgga te la waxan tegg ko war a dem daa fekk mi koo xam ne musta aj benn yoon kon nee na seeboo bu àggee mu daal di armal xumra mu daal di yéeni xumra xumra nag boo armalee mooy boo yéeni nga daal di wër kaa ba dox safa ak marwa bu fekkoon nar taaj nag moom kon dañ koy wax ne ko watul watu mooy gën waaye ndegam moom daal nar aj teg ci kon na jemp rek yem ci na jemp rek yem ci te bañ a watu su ko defee nag mu toog ba aj daal ni def tamatu ndax tamatu mooy nga yéeni xum rek kese def ko ba àggal wëlbati ko aj teg ca loolu moo tudd tamatu kon na ba asee armal xumra wëlbati ko teg ci aj kon def na tamatu wal xilaaqu watuga fii xëyri haasa ci lu dul li afdalu moo gën wa innama yustahabu naka def na sopp la xooñeel ko ak taqsiru jemp wa fii haasa ci lii istibxaan ngir sàkkoo desal li chance ñeel ay ñagg-ñagg maanaam ñeel ay desit kawar fil xaj ci ay gar xam nga daa wax ne bu armalee xumra ba wër kaam dox safa ak marwa day jemp te bañ a watu mu ne la nag dañoo bëgg degam bu noppee ci umra gi da ci deg aj kon mu jemp rek yem ci ndax ba àggee ci aj ga ba war a watu fekk bopp mu am lu mu wat loolu moo tax ñu gënal si jemp ne bu doon loolu watu mooy gën wa man nazara ku nisar mashiyan dox ilal madina jëm madina aw ila baytil muqaddis wala jëm ci baytil muqaddis ataaxuma kon mu dikkal leen ñoom ñaar raakiban mbir mu aji war inna waa ndéem yéene na asalaata julli ga bi masjida yi ci seen ñaari jàkka ya wa illaa ndéem yéene wut a julli ci seen ñaari jàkka ya fala shay di dara xale yi di ko war yene boo ni feroon doxal sa tànk ba dem madina mbaa doxal sa tànk ba dem baytul maqdis kon dañuy seet bu fekkee doxal kese nga ni fer waaye yéene waale woo ci boo demee julli ca jàkkay madina ja mbaa ca baytul maqdis dem kese rek moom nga ni fer kon du aajoo ngay dem say boo toog waaye nag bu fekkee yéene nga boo demee julli ci jàkk yi madina ba jàkk yi bëcc maqdis ya kon da nga war a dem waaye dem bi du aajoo ngay doxob tànk mën ngaa war daaba mën ngaa dugg oto mën ngaa dugg avion mën ngaa dugg ci leneen daal fexeel ba dem rek boo demee la nga yéene woon a julli nag ci jàkk yooyee muy muy madina muy bëcc maqdis nga julli ko fa wa amma xayru haadihi salaasati masajida ndaa ludul yële yetti jàkka fala yatiha du leen dikkal maashiyan mbir muy aji dox wala raakiban du caageen muy aji war li salaat ngir julli na daraha goog ni soroon na ko wala yu salli na julli rek bi mawdihi ci bérébam ba nee na boo ni soroon na dem ba ci jàkk sàngam te du benn ci yett yi maanaam du jàkk ja ca kaaba ga du jàkk yi madina du jàkk yi baytul maqdis mel na nga ni soroon na dem ndar julli jàkk yi ndar ja mbaa ndakaaru jàkkee ndakaaru ja loolu nee na loolu bu fekkoon ne moom nga ni soroon du aajowoo ngay dem ndar du aajoo ngay dem ndakaaru lim bi nga xam ne moom nga ni soroon boo demee julli ko ci jàkk yi ndakaaru mbaa ndar rek danga koy fat julli fii nga nekk waaye du aajoo ngay dem ndar mbaa ndakaaru du jar ngay dem dox du jar ngay dem dugg mbaa dara wa man nazara ku nisar ribaatan faandu bi mawdihin ci ab béréb mina tuxóori ci bunti ragal yi fa daalika kon loolee xale yi war na ko ay yatiyahoo mu dikkal ko maanaam mu def ko buntu ragal mooy buntu bi nga xam ne fii la jullit ñi ragale bi yëfar yi song ayo foofa song leen faando nag mooy nga taxaw foofa sàmm buntu booba dara du fa jàll si di door jullit ñi loolu moo tudd faandu loolu nag nee na boo ko nisaree ci benn béréb ci béréb yu mel noonu war nga koo fexe ba def ko day daal di war ndax dangaa nisar lu baax te ku nisar lu baax mu war la kon faaw nga war koo àggale baabun li ab bunt la fi nikaaxi ci sëy wa talaaxi ak pase wa rajxati ak fayli wa zihaari ak zihaar daañu wax lan mooy zihaar wal ilaay ak géñ daañu wax lu jublu ci géñ wal lixaani ak rëboo daañu wax lan mooy rëboo wal xolxi ak summikoo daañu wax lan mooy summikoo wa radaaxi ak nàmpaale wala nàmp moom it daañu wax luñ ci jublu kon yooyu la bëgg a boole ci bunt bi wala nikaaxa deetub sëy illaa bi waliyin ndara ci kilifa wa sadaaxin akuk can wa shaahiday xadlin ak ñaari seere yi maando dene sëy ci lislaam balaa mën a am faaw dana am ku yilif jigéen ja koo xam ne mooy ka ko war a maye maye ko daañu wax ñan mooy kilifa yi ñi nga xam ñoo war a maye ba tey itam bu dee ci yoonu Malik faaw mu am lu ñuy wax alali sëy muy can daañu ko wax moom itam buñ dee maye itam nañu wut ñaari seere yu maandu ñu teewe maye ga moom nag mayees naa maye te du ci am dana ko wax léegi waaye jamono ji moom am ñu maandu dafa jafe moo tax ñu bëgg rek mbooloo mu bari fekke ko buñ ko mënee daal nañu ko defee ci waxtu wax mbooloo mu bari ñoo koy fekke seere ko teewul nag daañu ko leeral léegi fekkee ne maye nañ te amul seere yooyu du ko tee baax du tee maye ga wér mooy fa in lam yushhidaa dem sàkkuñu ay seere fil xaqdi ca fas ga falaa yóbbu ñi kon du wéet moom jëkkër ja bihaa ak soxna sa xataa yushhidaa ba te ñu sàkkee seere tena bu fekkee ba ñuy maye sàkkuñu seere kon jëmmi maye ga wér na waaye nag balaa jëkkër jaa wéet ak soxna sa nañ sàkk ay seere yu seere ne diw mi kat may nañ ko diw ci can sàngam diw yi mooy kilifaam yi ko may woon jëmmi sëy ci boppam nag maanaam góor gi wut soxna wala jigéen ji wut jëkkër cosaan la ak sopp lay doon ndax la hadis boo xam ne tanaa kaxoo tanaa saloo fa inni mukaasirun bikumul umama yawmal qiyaamati fa ñu bind fa inni mukaasirun bikumul umama am na nett yu fay bind fa inni ubaahi bikumul umama yawmal qiyaamati mooy na ngeen sëy ndax ngeen ami doom ndax sa xeet bi bari ndax bu ëllëgee damay ëppalanteeg xeet yi ci des ab bariwaay am na fu wax ne arbahun min sunnanil mursalina maanaam yent bokk na ci doxalii ni ñi yàlla yónni te ba mu ko waxee limaale na ca sëy kon nag ak sot moom moo cay cosaan teewul nag mën naa dem ba war warga mooy moo xam góor gi moo xam jigéen ji la bu fekkee ne sëyut dana njaaloo su boobaa kon faaw bu dee góor ga wut soxna mënu caa ñàkk doon sax lu araam la koy dundale bu dee jigéen ja itam bu mu taamu jenn jëkkër na fexe rek ba am jëkkër ju ko te mën a def lu bon loolee muy njaaloo googee ba tey nag muy góor ga muy jigéen ja su ko wóoree ne mën naa taqoo koor te taqoo koor ga dana tax bànneexu jote góor jigéen du ko yëgati bu ko neexee kon mu bañ a sëy te taqoo koor ga nga xam ne moo koy teye jëm ci mooy yàlla muy njaaloo gi ñu wax léegi waaye su fekkee ne bu taqoo koor ga itam du tax bànneexu jote góor ak jigéen denc ci moom faaw rek mu bëgg ko yóbbu ci mooy kon faaw rek bu dee góor ga war naa fexe ba takk bu dee jigéen ja war naa fexe ba am jëkkër waaye nag muy góor gi muy jigéen ji bu fekkee wóor na ko ne moom bu séyut it dana mën a téye boppam du def dara ci wàllu dox tànki caaxaan kon bu ko neexee bu dee góor ga mën naa bañ a wut soxna bu dee jigéen ja mën naa bañ a wut jëkkër takk gi soxna sax mën naa dem ba araam mooy bu fekkee ni moom xam na ne bu tëkkutit du tax mu dox tànki jaaxaan te it la war ca takk nga amu ko ni ki amul can wala du mën a joteeg ka nga xam ne moom lay takk wala bu ko dee dundal faaw lu araam la koy dundale kon kooku takk ga te daal nekk lu araam sëy nag ci lislaam am na ñeenti ponk ba ci njëkk mooy kilifa mooy jigéen ji faaw na am kilifa goo xam ne moo ko war a maye maye ko ndax ñëw na ci addis ba mu ne ayu mamra'atin nukihat bi ghayri idni waliyiha fa nikaahuha baatilun baatilun baatil mu daal di baamu wax ne jigéen ju sëy te kilifa ga ko war a maye mayewu ko kon séem ba baaxut baaxut baaxut baamu ko yetti yoon kilifa gay maye nag moom faaw góor lay doon jigéen du mën a maye te faaw day kàllafe gone du mën a maye te faaw day nekk julit fekke ka ñi maye ku jigéen ka julit la kilifa ga koy maye faaw julit lay doon tey jamono yi gor ak jaam amee dañ daan sart mu nekk gor waaye jaam moom du mën a maye tey dañu sart ci kilifa ga mu am xel bu mu nekk ko dof ab dof mënta maye sart ba ca des nag te bu fara fara la mooy kilifa ga bu mu fekk mu armal aj wala xumra ndax kilifa gi maye wala ka ñi may soxna wala jigéen ja ñi maye bu fekkee kenn ca armal aj mbaa xumra te yewi ko gul rek may ga du baax day aajowoo ñoom ñett ñëpp kenn bañ caa toll ci armal boo xam ne yewi ko gu ca ba tey daanu toftale kilifa yi nañ war a tegaloo ci lislaam nga xam ne kilifa gee moo war a maye bu fa nekkul kee bu fa nekkul kee jàng moo ca topp bu dee ci yoonu Malik dañuy wax ne mënta ñàkk gën gaa néewi can ñu joxe ko ca gën gaa néewi can nag bu dee ci wurus mooy kaaru dinaar kaaru dinaar nag mi ngi tolloo benn gramme wurus bu tegal cent vingt cinq milligramme kon benn gramme bu tegal cent vingt cinq milligramme mooy gën jaa néewi can ci wurus gën gaa néewi can ci xaalis mooy ñetti dërëmi yoon benn dërëmu yoon nag mi ngi war a tolloog deux virgule neuf cent soixante quinze maanaam vingt cinq ci ay milligramme moo tee benn dërëmu yoon mat ñetti ngaraam loolu nag saa yu nekk da nga mën a xam nu mu toll ci xaalisu CFA bii nu toll mais ne bin ko mujjee laaj dañoo waxoon ne benn ngaraamu xaalis bu sell ci xaalisu CFA mi ngi tolloog deux cent quatre vingt ndegam nee nga vingt cinq milligramme rek moo manqué dërëmu yoon ñetti ngaraam kon man ngaa far def rek ci fii dërëmu yoon muy ñetti ngaraam yu mat soo defee nag trois grammes yi multiplier deux cent quatre vingt da lay jox huit cent quarante xam ne kon huit cent quarante moo tolloog benn dërëmu yoon boo ko defee ba mu ñetti yoon nag mu jox la deux mille cinq cent vingt kon fi mu toll nii mu doon seet jamono yi mu toll gën jaa néewi can ci xaalis ngi tolloog deux mille cinq cent vingt foofu rek lay toll mooy tolloog ñett dërëm yoon yi nga xam ne mooy gën gaa néewi can bu dee ci xaalis bu fekkee lam koy cane nag dafa nekkut wurus mbaa xaalis nag kon loola buñ seetee walëram namat lii ñu wax nun ñi féete ci yoonu sëriñ Touba danoo far tënku ci ndigal li rek def ko ñetti junni ak ñaari téeméer ndax li ñu ne sëriñ Fadlu yàlla na ko yàlla dolli ngërëm ak leer daa wax ñetti junni bi sëñ Abdou Lahad ñëwee wax moom ñaari téeméer delloo ko cosaan la sëñ Touba waxan ñu ne kon dañuy far boole ñaari ndigal yi muy ñetti junni ak ñaari téeméer def ko gën gaa néewi can loolu lañuy def fii ci sunu yoonu sëriñ Touba wi de ñaari ponk nga waxagun muy kilifa ga ak can ga ba ko ñetteel nag mooy li ñu tudde almahallu béréb béréb bi mooy boo fasee sey bi fan nga koy fas mooy azawju wa zawjatu alxaaliyaani min almawaanixi alsharxiyati kal ixraami wal maradi wal iddati bi nisbati lil mar'a maanaam ñetteel ponk yi mooy kañi may soxna kañ koy may muy jigéen ja bu ca kenn am dara luy tee sëy ba mën a am ci lislaam niki kenn ci ñoom ñaar bu mu fekk mu armal aj wala xumra te yewi koo gut bu mu fekk kenn tawat ca tawati faatu bu dee jigéen ja itam bu mu fekk mu toll ci xidda wala ak laablu ponk ñeenteel bi moom la ñu tudde aziratu waxin wa nga xam ne ca la ñuy xàmmee ne kii ñaan na soxna may nañ ko ko loolu farata la ca mënu caa ñàkk kay ñaan soxna rek bu xasee wax ne ñaan naa soxna sii ci can sàngam ka ko sañ a maye ne ko may naa la ko ci can googu nga wax rek dal nay doy sëkk lépp sotti na lu tolloog xutba ya ñi def ak guragaag yépp rek dañ ko caa sopp waaye xutba bu mën naa ñàkk guraag tàngale yépp mën naa ñàkk lay farata ja rek mooy ka war ñaan soxna ñaan ko ka ko war a may may ko te ñu ràññeel can nga du mën a ñàkk nag ñu sàkk ay seere lañ gën a sopp nag mooy fañ koy mayee fa la ñuy sàkkee seere ya ndax buñ amee ñaar ñu maandu sax mu doy sëkk waaye na dañoo wax ne maandu dafa jafe léegi kon buñ sañoon ñu def ko ci waxtu woo xam ne day fekk mbooloo mu baree baree bari teew fa ñëpp doon cay seere loolaa ca gën teew nag bu fekkee bañ koy maye amuñuy seere ni mu ko waxe rek gannaaw ba nañu sàkk ay seere balaa jëkkër jaa wéet ak soxna sax dañu wut ñaar ñu mbaandu xamal leen ne leen diw mu jigéen kat maye nañ ko diw mu góor mii kee ko ñaan si woon kilifaam gii moo ko maye ci can sàngam nga xam ne kon seere ya teew fa ñuy mayee daa gën rek waaye mu des naa maye te du am ay seere ci gannaaw ba nag ñu sàkk ay seere balaa jëkkër jaag jabar ja di jotee dara ba tey nag ñu seetlu ne ka nga xam ne mooy ñaan si soxna ak kilifa ga war a maye buñ jëlee seen kàddu jébbal ko ilimaani jàkk ja mbaa seen kilifa diine kilifa diine ga mën naa boole yaar yépp dagaan ga ak maye ga ba tey mën naa sàkk ku ko dagaanal moom mu maye waaye bu boobaa nag ka nga xam ne moo fa teewal ka ñuy may soxna bu fekkee ne kañ may ci boppam teewu fa ka ko fa teewal na wax ne li ñu ko may nangul naa ko ko ndax niñ ko leeral léegi sart ba rek mooy kii ñaan soxna ñaan kay maye may ko ci can sàngam te it mu teg ca ne nangu naa li ñu ma may loolu rek mooy sart yi ñu bañ di ko fàtte benn yoon wa aqallu sadaax gën jaa néewi can rubuxu dinaarin mooy kaaru dinaar maanaam bu dee ci yoon Malik dañuy sart la ñuy cane lum néew néew mat kaaru dinaar wala mat ñett dërëm ci yoon wala boog fekkee day lu bokk te wur sa xaalis ku seet wëlër wa na mat loola walil abi ñeel na bàyyi in kaa xubbu na tixi seyiloo doomam bu jigéenam ba al bikri kadi ab xiik bi xëy di isniha ci lu dul ndigalam wa in balaxat ak doonte kàllafe naa nee na bàyyi nag moom sañ naa may doom bu jigéenam ne ko may naa la jëkkër te du sañ a bañ te du ko ci diisu mbaa dara doonte sax moom mag la bàyyi daal sañ naa forcé doom bu jigéenam bi nga xam ne xiig la maanaam nekkul jeeg sañ na koo forcé ci may ko jëkkër te du sañ a bañ wa incha ndeem soob na ko nag shawaraha mu diisoog moom bu ko soobee nag mu diisoog moom ndax dalal xelam ci kaw nag fekk sax muy mag maanaam fekk nga xam ne moom doom bu jigéenam boobee kàllafe naa bu dee suñu jamono ji daal mel ni moom diisoo gi lu baax la wa ama xayrul abin daal kudul bàyyi fil dikri ci aw xiit wasiyun moo xam kuñ dénk la aw xayruhoo mbaa kudul moom wala yusa wi juhaa du ko sañ a maye mooy du ko sañ a sëyiloo xataa tablu xam ba te mu kàllafee wa tazana te muy digle wa isnuha te ndigal lamit sumaatuha mooy ak noppeem yene bu fekkee kilifa nga ci jigéen ji waaye yow doo bàyyum dëgg-dëgg kon la muy nekk nekk xiig xam nekkul jeeg la muy nekk nekk xiig dina koo dénk rek mbaa nga bokk ak moom ndey ak baay mbaa nga bokk ak moom baay mbaa ngay bàyyi mu ndaw yow doo jag doo ko sañ a maye mukk lu may daa kàllafe mooy life mi ci ngone doo ko mën a maye te bu kàllafee itam da nga koy laaj njëkk bu mu ànd ci ka nga koy bëgg a may daga moom nag xiig la xëy na dana rus wax ne waaw kooku bëgg naa ko kon nag boo ko laajee mu noppi rek te gisoo menn mandal ko muy wane ne bañ na kooka mën ngaa sukkandiku ca noppi gam noppi ni waaw daa bëgg kooku waaye nag bu dee ree ree yi kuy xebat kooka mbaa lu mel noonu daal waaw say bu bàyyi mu daal bala nga ko mayee daga moom yaay ci bi faam xiig la nag waaye doo bàyyam benn ngay càmmiñam rek mbaa ñu dénk la ko nga yore ko rek mbaa ngay bàyyi bu ndaw mbaa doomi bàyyi bu ndaw yi demee noonu daal moom wala ngaa sañ a maye kooka day aajowoo mu génn ci ngone ba kàllafe te it nga laaj ko ba mu nangu boo ko laajee mu noppi waxul dara nag te gisoo mandarga mu wane noppeem googu ak bañ la man ngaa jàpp ne kon noppi ga ak nangu la ngaa jàpp ne kon noppi ga noppi waxul dara ak nangu la wala yu sa wéju du sañ a seyiloo attayiba jeeg ba abun baay wala xayruhu du caageenu kudul baay illaa bi ridaaha ndare mu ànd ak ngërëmam wa ta'dana te muy digle bil xawli ca wax ja ndaa wax ne bu fekkee ne jigéen ja ñi maye moom du xiig jeeg la magum jëmm la ànd ak sagoom bu baax a baax waaw kooku moom nee na moo xam bàyyi moo ko war a maye moo xam keneen la te aajowoo mu laaj ko ba mu nangu te ak nangoom da koy wax ñuy dégg noppi kese du ci doy moom day aajowoo mu wax wér wér wala tunkahu defu takk almaratu jigéen ja illa bi idni waliha ndara ci ndigalul kilifaam aw di rëy wala borom xalaat min ahliha ci ñooñam ka rajuli mel ne góor min hashiratiha gu bokk ci giiram awi sultaani wala àttekat julit ba dafa wax ne jigéen moom mëni su ko takk te du kilifa la ko may kilifa ga nag mën naa doon kenn ci ñi mu lay bëgg a tegaleel ngay dégg fekkee ne kilifa ga sëñ te forcé mënees na faa weesu kilifa gu jege dem kilifa gu sori maye ko te du ko tee baax ni ki bu dee fii ci aadi wala sax léeg lu bare bari càmmiñ muy ku bokk moom ndeeg bàyyi muy amee sañ-sañu maye te du tee ñu dem ci bàyyi bu ndaw mu maye ko waaye lu mel noonu du ko tee baax kon daal faaw na ko kilifa ga ko war a maye maye wala boog fekkee kooku du woon kësës dëgg dëgg war a maye it fekk na ka maye moom kilifa la ba tey baax na bu fekkee nag topp nañ tegale bi te gisuñu kenn ci ku war a maye ci ay mbokkam nag atikat bi moo ciy mujj atikat moom kon mooy maye waxa duxtalifa wuuteef na fi daniyati ci aju suufe daraja antu walliya mu féetale boppam aj nabiyan ab jàmbur jigéen ji suufe mooy koo xam ne li tax ñu bëgg jigéen muy alal mbaa taar mbaa askan wu baax mu amu ca lenn ku mel noonu nag ndax mën naa fekk rek koo xam ne mbokkum jullitam la mu góor mën naa fekk góor goo xam ne mbokkum la ci islaam rek mu ne ko féetal naa la saa bopp maye ma kooku daal di koy maye loolu ten cee wuute ba xam sañes na ko wala sañesu ko wax ji gën a wóor mooy waru ko woon def waaye bu ko defee itam kooku maye ko it mu daal di wéy waaw dañuy wax naa daal am nañu ne sañ naa jekki-jekki bàyyi kilifaam dem fekk rek ab jàmbur boo xam julli la ne moom mu féetale ko bopp mu maye ko am ñu ne dagan na am ñu ne déedéet daganut watoon song def ko waaye bu xasee song def ko na ñu bàyyi ko ja takk-takk bi moo di jigéen ji bu amee kilifaam goo xam ne sañ na koo forcé maye ko te du sañ a bañ ni ki bàyyi mi nga waxoon kooka moom bu ko fa weesoo dem ci keneen du baax faaw ñu dindi sëy ba waaye bu doon kilifa goo xam ne moo ko sañ a maye rek ci yoon waaye sañut a forcé ñu ki càmmiñam mbaa bàyyam mu ndaw mbaa doomi bàyyam mu ndaw moom nag muy jigéen joo xam ne yii ñu la wax muy alal mbaa askan wu baax mbaa taar amu ca lenn kon daañu sib rek mu bàyyi fa kilifaam googee dem ci mbokkum jullitam mu góor rek daal di ko ne maye ma yaay sama kilifa def naa la kilifa nga maye ma kooka daal di koy maye sib rek lay doon waaye du tee ne wax ji gën a wóor mooy su ko kooka maye itam maye ga wér na wal ibnu doom bu góor aw laa moo gën a yow dina abi ci bàyyi kon bu fekkee ne doom ju góor ji dañuy bëgg a maye yaayam te baayam nekk fa maanaam baayam yaayam nekk fa kooku mooy maam ju góor rek waaw jigéen ji ñu bëgg a maye daal am na doom ju góor joo xam mat na kilifa baayam dëgg-dëgg itam moom jigéen ji muy fi su boobaa doomu góor ba moo amee sañ-sañu maye moo war a jiitu waaw doomu góor mooy jiitu doom doom doom ji góor topp ca muy sët bàyyi door a ñëw seetlu nga loolu ne jigéen ji ñi maye daa am doom ji góoram joo xam ne moo ko jur moom jigéen ji te mat na kilifa bàyyam dëgg-dëgg nekk fa itam moom jigéen ji su boobaa doomu góor bi moo gën a amee sañ-sañu maye. wala abu baay itam awlaa moo gën a yem nag axi ci mbokk waaye nag bu fekkee ne jigéen ji bàyyam dëgg-dëgg mi ngi fi. mu am càmm lu fi nekk lu mbokkal rek bàyyi mbaa bàyyi kooku moom bàyyi gën a jege ndax bàyyi leen boole jur kon bàyyi moo gën a jege bu man xaru ba ku jege rek dina xasa bëti ca way asabaal ña wala ca génne ga a xàqu moo gën a yeyoo kon génne ga muy wàllu bàyyi ba ku ca gën a jege rek yaa gën a yeyoo maye waaye kon nu far tegale foofu kilifa yi niñ tegaloo fii ci wàllu sëy ka jiitu mooy doom bu góor yi jigéen ji ñu war a maye bu jàllee doom ju góor yi doom ju góor maanaam sët boo xam ne doom ju góor a ko jur moom jigéen ji ñu maye bu ñaar ñu jàllee nag nga door caa teg bàyyub jigéen ji nga xam ne kon bu fi bàyyub jigéen ji nekkoon waaye fekk na jigéen ji am doom ju góor ju mat kilifa mbaa sët bu bàyyi ko ci doom ju góor ju mat kilifa kon doom ji góor ji mooy jiitu sët ba topp ca bàyyi mi moom door caa topp soo jàllee bàyyi nag nga teg ca mbokk mu góor mi bokk ak jigéen ji ndey ak bàyyi teg ca mbokk mu góor ma bokk ak jigéen ji bàyyi dong buñ jàllee nga teg ca seeni doom te seeni doom tegaloo ni seeni bàyyi tegaloo woon nga xam ne dangaa jiitalan ki bokk ak jigéen ji ndey ak bàyyi kon ba tey doomam mooy jiitu door caa teg nag ka nga xam ne moo bokk nag moom bàyyi dong kooku it ba tey kon foofu la doom di door a topp kon boo weesoo mbokk yi doomi mbokk yi ñoo cay topp te tegaloo na nga xam ne moom la seeni bàyyi tegaloo woon bu mbokk yi jeexee doomi mbokk yi jeex na nga door a ñëw ci maam mu góor maam mu góor foofu lay sës su maam mu góor jàllee nga jàll si ci bàyyi bu ndaw da ngay njëkkee bàyyi bu ndaw bi nga xam ne mook bàyyi bu jigéen ji ñoo bokk ndey ak bàyyi teg ci bàyyi bu ndaw bi nga xam ne mook bàyyi bu jigéen ji ñi maye ñoo bokk bàyyi dong suñ jàll